comme man tam li Barka wax la yoo xam je suis du expert ci football. oui mais mun nga transposer li nga nekk. expert sport bi nga nekk expert non dama dégg dama dégg sax Samuel Eto'o ci vestiaire yi keroog. Uh-huh. damay suivre temps yi capsule yi fekk a foot di def. bi bi ñu gagné seen deuxième match bi mu ne leen actuellement l'équipe nationale c'est le bien le plus précieux bi Cameroun am mu wax loolu ne leen c'est le bien le plus bi Cameroun am donc gis nga fi mu yóbbu. Mm-hmm. fi mu yóbbu niveau bi. Euh, keroog am kuy bind ci statut di wax ne sénégalais yi nañ bàyyi équipe bi ñuy critiquer <coughs> ci statut ma ne ko sénégalais yi ñoom ñëpp seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm lañ dajale jox leen ko ñoom pour ñu dem ils ont le droit de parler de l'équipe et que il faut il est temps aussi que le football revienne au footballeurs mais lii ma gis tey jii euh, euh, Aliou Cissé dama ko yërëm seetaan seetaan na ces déclarations yi muy def yëpp il parle plus de football il parle il, il prend la place des fédéraux mooy liggéey li ñu war a def mooy CAF daf ñu léser mooy descente aux enfers parce que liggéey bi ñu ci war a def en terme sur la gouvernance aussi bien des ressources humaines yi nga xam ñoom ñoo war a gérer le football que aussi bien de ci ressources financières yi mooy xaalis bi ni ñu koy gérer loolu yëpp dafa des ñu ci bari lekkukaay lañ ko def affaire mafia la ñu ko def te loolu ñoom Mbàkke ñi ak ñoom euh, yéen ñi nga xamante ni yàgg ngeen suivre sport bi c'est devenu un secret de polichinelle soo gisee niñ ci tegee seen bakkan fi mu ne nii nga xam ne ñii am na leneen lu ñu bëgg lu dul football li tax ma ne il faut que le football revienne au footballeur mais tey jii voilà c'est-à-dire que aujourd'hui tu prends Augustin il va être maire de Gorée il est il est au niveau il nga mu ngi bëgg a gérer bi en même temps nga jël Abdoulaye Sow il veut gérer son ministère il veut gérer Kaf il veut être maire de Kaffrine et il est encore au niveau de la fédération à un niveau il faut que à un moment aussi ñu xam lan la ñu bëgg xam ne il y a des Sénégalais compétents capables de mener les choses kii euh, ñu bay cumul mais on a le cumul partout qui trop embrase nag mal éteint yaa ngi dégg on embrase partout et euh, finalement dafay poser benn problème boo xamante ni mooy déteindre ci li nga xamante ni moom la joueur yi di di dund euh, beneen leneen li daal mooy je pense que des Sénégalais yi ci dugal seen dërëm ak seen ñaar dërëm aujourd'hui on a le débat ici à Dakar aux Almadies c'est un débat très dakarois mm. mais ces Sénégalais là un peu partout dans le pays di ci dugal seen xaalis redevabilité bi mooy li ci war ñu def ko ci mhm. waaw c'est-à-dire que on ne participe pas à, à ces de combat pour gagner ko mais li ci war nañ ko ci def nañu jaar ci yoon woo xamante ni au moins dinañ xam ne yoon wii la football bi jaar sur le court terme le moyen terme et le long terme mais li ma fi gis nii très sincèrement copinage laa fi gis ak euh, voilà des détournements gi kenn xamul El Malick euh, équipe bi est-ce que tamit classement FIFA euh,